Djibson production muy dimanche 8 décembre <laughs> Boy Baol de door na non Boy Baol arbitre dafa sifflé rek mu door Boy Baol de ndeysaan ak Caatu Faas Caatu Faas a ngi dox ci kawam Caatu Faas moo ñëwoon ginnaaw Boy Baol de moo jàkkaarloog ñun Les amis première journée Gibson production Boy Boy cokkaas na léegi caatu face. ndeysaan bu écrit Boy Bawal 2 Grand Dakar Molo Leoto ndeysaan ay eh, waay Pape Ndiaye ay da bum di dégg noonu ci wayi caatu faas nee na tek kurpeñ dalagul congo amagul ci diggante booy bawol de ak caatu faas ndeysaan muy premier sortie bu faas Boy Baol cokkaas na waaye dalul ba eh, caatu faas fayu na Boy Baol caatu faas ñaari mbër yi ku ne ngemb xonq moom nga ngemboo e eh, Boy Baol de sa dóor yooyu baaxul dóor yi benn dalul Caatu Faas ak Boy Bawol 2 Caatu Faas waa arbitre nee na bëre leen ma yoro ma yoro Baye Fall ñoo ngi lay nuyu arbitre nee Caatu Faas na Boy Bawol sa benn ku dalul daañ la daan Caatu Faas na Boy Bawol numéro 2 première sortie bu Faas ndeysaan ñu am ci victoire ñaari mbeur yaangi damante baram bour lew tobi yag na nañu dal mu sotti eh mbay fagal dor eh, oh, ya kan na leg mu neex leg mu sotti way may fëgg ci bop lu ko dor bop lu dor dóor da baax wóorul de eh eh, eh ñu ngi xex Fatou ba eh. mbay fëgg fagal xex bi baxna na fagal xex bi baxul mais ndox ñu tëgg ndox ñu tudd fagal yeb ay gëree lañu wax ay gëree la ñuy doon wax nga nga de ñu tudd gënee lañu gënee lañu dañuy jokki mais buur Bulldozer tuus na lu neex ah na lu neex gisoo général bu Malika la àndal waaw ndeysaan waa mi ngi noonu ànd ak général bu Malika ah waaye li muy dépensé ci intérêt waa mbay mais mbay fëgg na sax xaarkat la donc boo ko accéléré wul li nga bëgg doo ko am Fadi kay maa bu écrit songaan ngay songoon ay ca da ngay dem gorel gorel daanuwul Fatick. ay daanuwul. booy Kayma daanuwul. daanuwul Kayma Kayma la Fatick. non kii Kayma. Kayma la Fatick defaat na même erreur bi ne woon naa la ki muy bëreel da koy xaar ne woon naa la ki muy bëreel da koy xaar. non buur bàyyi naa la. da koy xaar. non buur bàyyi na. danaan tekk mel ni ko gis nga erreur ba erreur ba erreur ba gorel gorel bi yoon da ngay daanu gorel. mbay mbay. bay Feugeleu daan na ko. bay Feugeleu. xaar na ko ba nax ko daan ko far. daan na ko.

Baar Alioune daa takk xool ko nee na la pataake la yor. nangul tey Djiby Ndiaye la bés bu rëy bii nga ñëw ànd ak sa xarit Babacar Diop nga ñëw wuy si tey jeunesse su réew mi tey bi nga dugg see bi Cheikh bi loo wax dëgg bi ma dugg see yëg naa mbégte ndax gis naa ne li taxoon ñu tuddee ma ko fekk naa ko fi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax yëg-yëg bu am solo laa ci bis bi. ndax Jibi Ndiaye ak suma xarit bi toog di mbay Babacar wax dëgg maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax loolu rafet na kóllëre nag kóllëre rek koy fay kóllëre kóllëre koy fay mbay Babacar la fils du président Abdoulaye Wade tey nga ñëw ànd ak cheikh bi ñëw tey ci bés bu toll ni cheikh bi nee na bi mu dugg see mbégte ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur ah, di sant ñi fi teew ah, di sant Barhama mi nga xam ni sama nit la di sant euh, Adama bi nga xam ne sama nit la tey moo fi teewal laxat ndiir ay nit ñu baax ñoo xamante ne wax dëgg yàlla samay nit lañ barxaama nag moom dama koy bàyyi yàlla rek ak Sidi barxaama bi nga xam ne moom la yaakaar si àdduna di ñaanal tamit euh, président Ablaye Wade bu baax a baax yàlla bàyyi ko fi yokk ay fanam di ñaanal Karim Meïssa Wade suñu grand frère suñu président di ñaanal yàlla yàlla réew mi réew am jàmm daal jërëjëf. bés bi rëy na. macha allah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax macha allah bés bi rey na trop waaye bés bi foog mu rey parce que bés boo xam ne ñoo ngi ko tuddee Barham di setu cheikhul islaam ñu bokk lépp mu feggoog doomu ndeyam Mbaye Babacar Diop nga xam ne ku ko gis xamee ko Ablaye Wade ku ko gis xamee ko Karim Meïssa Wade muy taxaw liggéey bu rafet di ci dox. di dox ci lépp loo xamante ne bii lu jëmale mbiru Karim Wade ci kanam ba tax mu taxawal mouvement jàppal ma jàpp kon bés boobu war mën a tuuti macha allah dañuy sant yàlla di ñaanal borom lambu ji itam ak barham mi ñu tuddee lambu ji itam njal na ko jik te itam yàlla yokk ko taxawu leen itam aar leen bi jaahi Seydina Mohamed ba li ñu nomm ci réew mi mooy delloo si fi Karim Wade mu nekk cinquième président di Sénégal yàlla defal ñu ko. kon loolu rek la bëgg. waa loolu rek la bëgg lool de bu amee moom réew mi am jàmm mais Karim bu ñëwul moom réew mi du am jàmm moom. foog mu ñëw foog mu ñëw ndax moom moo mën a defar réew mi ndax ki fi ne mënul defar réew mi jaay doole la fi nekk te tëjaate. rek Abdoulaye Ndir bi nga xam ne moom la ñu tuddee drapeau bi di ku baax tamit. di wax ne bëggoon na ñëw lool waaye daa fekk ni des raisons personnelles yoo xamante ne moo ko téye moo tax mënut a ñëw waaye doom dayem bii di xam ne mooy Babacar Diop bu ko fi teewelee teewel na teewel na ko teewel famem teewel bépp Nord Foire teewel képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak euh, Abdou Lahad di promoteur bu mag bi sant nañ leen gërëm nañ leen bég na ci bis bi te sant nañ leen tamit mi sant doom ndeyam di sant bu baax a baax a baax ci bis bi di xam ne nag promoteur bi mag la jaaykatu suuf mag la bu nekk. <laughs> mais Baye foo ne. <laughs> mais Baye nuyu naa la. mais Baye foo ne. Baye la nam Baye foo ne foo ne. foo ne. sa ñàmb. waaw fu cukkuli toll cukkuli fu mu toll Baye. naa la ko woo laaj ko après incha allah. moog Ama Baldé loo gis. combat bu neex la. pare ngeen ci bëgg ngeen ko. man du may bëgg du may pare. bàyyi bëgg ngeen ko wala bëggu leen ko. booy ñaa booy ñaa. ko laajal ba bëgg na ko. Ndiaye bàyyi bëgg ngeen ko wala bëggu leen ko bàyyi man ngay waxal naan mburu wax ma bëgg ngeen ko. jëm. ñu ngi mu ngi sant ñu ngi koy ñaanal yàlla mu gën a jóg dëgg yàlla ça va quoi ak seen bi wax dëgg yàlla ñu ñëpp ñu si bokkoon yàlla dimbale nañu ñu ngi féex daal. mais Sénégalais yi am nañu sympathie ci Cheikh Amar. waaw noonu la xam nga réew moom boo fi nekkee def lu baax nekk taalibe oyof donc da ngay mën a am jàmm ak ñëpp day dem ba boo nekkee si ngay gën a xam sax ni la Sénégalais bëggee. wax dëgg yàlla bi soog bi amee li ñu gis keroog si Touba euh, dafa dafa yéeme wax dëgg yàlla ñëpp a bokk ñu naqar gi def ba yàlla dimbalañ tey ñun ñu ci nekkoon yëpp alhamdulilah quoi ñu ngi sant bu baax a baax. fu saison bi toll lool na ren nag. waa saison maa ngi waajal maa ngi waajal vingt 28 décembre incha allah diggante Boy Balde ak euh, Gorgui Étudiant. fii moom dañ cee bëgg liggéey ah, dañ ci bëgg a liggéey ak yow. non buntu bi wéeku na ñëw leen yow ñoo ñoo far. bëgg ñëw ñu direct ko sur Dakaractu. amul benn problème yow loo bëgg nay jàmm. Cheikh Omar Bamba Faye ah Bamba Faye le 28 décembre. lambam ji muy tëgg ça sera sur Dakaractu direct bu saf sap boo xam ne 4 heures lañ koy commencé ba 20 heures. loolu ngay dem ma yóbbu. Balla Gaye dem ma yóbbu. liiru sànq dañuy dernier combat am lay bëre su paree dem états-unis tëdd bu waaw ma bul ma catu kaar sa gàttu gémmeñ bul ma catu dimbali ma kaar bàyyi ma ay waaye dañ wax ci waxi làmb ji bàyyil waxi loolu nan wax ci waxi làmb ji kaar. mais wuli instant bi dafa am doole dafa taxaw dafa bari doole. wuli xoolal wuyu ma man damaa liggéey ba tooy xool ma damaa liggéey ba tooy <laughs> damaa liggéey ba tooy. li ma jàmmale kon. jàmm woo buur nga jàmmale li. waaw non non du wuli dafa am leen lax si biir ay saytaane yu nekk ci suuf. ñooy saytaane. promoteurs yi am nay saytaane reporters yi am nay saytaan am na yeneen saytaan yu ma tudd déedéet après la gën a leeral après. Zarko Ngalla moo ñëwoon ginnaaw moo féete suñu ndeyjoor Zarko moo ñëwoon ginnaaw moo ngem moo ngem lu weex li Ngalla dérange Zarko oh là là xale yaa ngi bëre quatrième combat de la soirée Ngalla dérange ak Zarko de Ngalla Tranché bu Rebeuss laa ilaha illallah Zarko doon na kokkal Ngalla teggi yoo la la Zarko 2 ak Ngalla Tranché bu Rebeuss Ngalla Tranché ak Zarko numéro 2 ñaari mbër yi day jege nañ saako yi ña nga Eh, eh eh Cheikh Omar wul de <laughs> Cheikh Omar na bàyyi tardé moo dàq caméra mais moo dàq waaw moo dàq caméra man jàmbaar la waaye tardé tardé problème am <laughs> eh Cheikh boole de maag moom Pël moo boole. <laughs> Eh, oh là ah! déranger daan na Ngalla déranger daan na daan na daan na Zarko 2 Ngalla déranger daan Nior cinquième combat de la soirée arbitre sifflé na ci diggante Boy Nar ak Ngaraf Boy Nar ngem lu wéx, Ngaraf ngem lu ñuul Boy Nar Ngaraf Boy Nar Ngaraf Ngaraf mo ngem mo ngem lu wéx. Boy Nar mo ngem mo ngem lu wéx. <laughs> Mo ñu won ginaaw. laay <laughs> Ngaraf wala dañu lay. Ngaraaf bëre na lu rëy Ngaraaf Boy Naar moo ñëwoon ginnaaw Ngaraaf moo jàkkaarloog ñun Boy Naar moo jàkkaarl moo ñëwoon ginnaaw mo jakarlo ak ñun Ngaraaf Boy nar bul génn Boy nar bo génnee di nga am avertissement avertissement Boy Naar am na avertissement moo génn arbitre sifflé warna, na ci diggante Boy Nar moo gos ngaraf Lagos Ngaraaf moo ngemboo ngembu lu weex Boy war ekri eh, Bawol ñaari mbër yaa lewto lewto bu oh Ngaraaf daw na song ma ngay door ma ngay door Boy Naar Ngaraaf Boy Naar ak Ngaraaf Ngaraaf mu Naar écrit Bawal ndeysaan cinquième combat de la soirée ñaari mbër yaa ngi ni tek e bëre leen waay e bëre leen waay bëre leen e bëre leen waay e bëre leen waay ñaari mbër yi tàqali ko nañu Boy Nar ngembu Lagos lu weex toobu diib eh bëre leen waaye mais Cheikh xale yi bëre. non bëre wuñ de neexul. neexul Cheikh Omar nee na neexul sama caméraman nee na neexul. combat bu neex. sama caméraman nee na bëre wuñu neexul ah. ngaraaf booy naar ñaari mbër yaa ngi damantey baaraam yoo la la. Boy Naar door na Boy Naar door na oh, oh, oh Ngaraaf door na léegi éperkel Ngaraaf oh la la boy daw na jël oh la la tànk bi da caat na ngaraaf boy naar ngaraaf boy naar nañ saaku yi ngaraaf di nga amaat averti nga am avertissement Mboy Nara ngay tekki galaaje di sànni na jeex na Cheikh Omar xale la te incha allah bu ko jàppee nga xam ne lépp dëgg booy ziar naa la wér ñu gis ni tuuso ankañ tuus naa kay ñun gisuñu sa da ngaa yéex a ñëw tuus naa lu rëy da ngaa teel a bilaay walaay dus mu rëy sax nan nga préparé sa waaw ñëw dal rek jox ko jër ba am li nga bëgg a dem différence de poids joué sa digganteeg moom. non non non mënut a dee bu suma la masse ak doole du ak doole du benn ñun ay lébu lañ quoi. moom moo moom moo la ëpp. waaw mais bëriwul ñu xam ne bu dëgg la. Thiès. yaay sa Thiès waaw waaw préparé li mu war a préparé lépp préparé nañ di ñaan yàlla ma ñu si dugg si kawam. Sa Thiès am nga xadar de. ah da nga sant ay xale lan. ba doo ko bëre waat. waaw day sant yàlla rek di kanam bu baax. préparé junior numéro 2. réparé junior ak Tidiane Faye numéro 2. réparé suñu ndeyjoor door na oh là là jël na ko Tidiane Faye daw na jël réparé. réparé Tidiane Faye. réparé junior Tidiane réparé junior mo ñewon ginaaw Tidiane Faye ngi dor réparé junior Tidiane Faye oh la la la ilaha illallah réparé Repare, daan Tidiane arbitre sifflé na bu ndaw songo nañu ñaari mbër oppa kan moo daan bu ndaw bu ndaw bu ndaw moo daan Sayyidina Ali. Wow, mama, you bar bi sifle na ci diggante Boy Virage féetee seen ndajoor ak Boy Diouf ak Boy Diouf Boy Boy Virage moo féetee seen càmmoñ ngemoo ngemu lu ñuul li Boy Diouf féetee seen ndajoor moo nekk ca olympique bu Ngor olympique xeex Ngor lay doon waaw nuru na ko de ñooñu ay combattant la ñu formé fan lañ doon dama ñooñu ay xeexkat la ñu buur ay ca ñu ngi léew too waaye daf mel ni Boy Diouf dem la bëgg Fatou Boy Diouf dem la bëgg dem la bëgg fay dem mais lan la fay fekk yooru kat la waaye lan la fay lan la fay fekk ay ca Boy Virage ak Boy Diouf. ñu ngi lew too dara amagul. ñaar ñaar ah Boy Diouf tokkaas na léegi. xeexkat la ngor la ne ji koy la yor. waa ji koy la yor. ay ñeme day bari histoire. nga foofu la caatu si te nekk. walaay ndeysaan ak xeeru ngor. xeeru ngor foofu la nekk. Oh. day xeex de. non day xeex day xeex. waaye su ma doon moom Fatick mu def round d'observation. waaw moom moom Boy Diouf. waaw déglu adversaire am. déglu waaw parce que adversaire am koy déglu. waaw mais dafa mel ni ku bëgg a gëdd ku bëgg a gëdd adversaire la waaye xam nga ne booy virage ak booy juuf olympique bu ngor lépp ngor la lépp ngor la wax nga dëgg de lépp ngor la lépp ngor wakaam yoof. ngor wakaam yoof. ayca. ak booy juuf. waroon na mën a gën a gaaw eh eh booy virage nga koy attaqué. booy virage nga koy gëdd. gis nga jàpp na ko booy ah, juuf jël na ko booy juuf jël na ko. bul génn kaay taxawal. booy virage booy virage bul yàq combat bi. non bu delluwul day am avertissement. a ah, kon nag na taxaw yëgtal nañ la jongalee. daan nañ la daan nañ ko lébu la dafa jaar nañ ko. booy juuf daan na booy virage. bul jooy oh bul jooy booy virage. mais mais mais mais buur. buur bul jooy booy virage. booy virage bi mooy deuxième combat. deux victoires deux deux deux défaites. deux défaites looloo ko jooyloo. te moo changé turam def booy tournal <laughs> wala booy jubal Fatick. Diagne la ñu décoré noonu décoration bi xaritam doomu ndeyam jeen production jey production moo koy jox noonu ndeysaan yaram daw na Djibi Ndiaye bool production Jibi Ndiaye décoré la ci kanamu àdduna yëpp. buur sama xol dafa sedd ndax lii Jibi def dafa rëy vraiment ma war a bëree dimanche mu woo ma ne dafa may décor dafa may ñaax dafa may yokk jom su dimanche ñu xam lépp dëgg la. liiru dinaa daan incha allah rabi ñëw indil ko drapeau bi décor ndax Jibi Ndiaye sama papa Jibi Ndiaye la tudd moom muy tudd Jibi Ndiaye kon sama papa la li mu def ci man dafa fort dafa rëy. maa ngi koy ñaanal ñu dégg ko ci kaw a kaw a kaw taw. te leeru lii lu may def ci yow ci combat bi lu may def. jom wuli am na problème. weesu na am problème man maa la wax lii yàlla na yàlla suturaal. liiru maa ci dóor nit mu daal. lu ne mu ndaam combat bee ko laaj maa ngi sama jarbaat Abdou Sène Abdou Sène fukki yoon juróom ñaar sama jarbaat la sama xarit la sëñ Samba Ndour kenn moom. da laxasu suuf. après buuru après nañu comprendre. mais ñu la faral ci suuf ay promoteur waaw non non làmb ji li moo bari loolu après lépp dina leer. am na ay promoteur la faral ci suuf. non waaw am naa suma xarit suma doomu ndey d'accord. am say avocat bopp. waaw maître Ndiak Ba kooku kenn waxatu ko ko. am say maara bopp. waaw maître Ndiak Ba. am mbër yu la ngem. sëñ Samba taw sëñ Modou Seye borom tawfeex sama sëriñ la sama xarit la sëñ Gassama sëñ Modou Faye sëñ Cissé mu sëñ Babacar ñoom ñëpp samay sëñ la. wala mënu ci génn. déedéet du yomb de. liiru est lii jàmm la lan la. Balla Gaye ko fay maa ngi koy ko sant ndax combat bi gis naa ni mu ko nee na Modou Lo ko indi moom. waaw Modou Lo moo loolu dara garaawul foog liiru maa ngi gërëm père ba bu parcelle ba Papa Sow ku baax la ku bëgg sport sport lay dund liiru daal di nga duma wuli incha allah rabbi dimanche yàggul leneen fi yàlla bàyyi ba may ñu wér at fekk at tal maa ngi gërëm monsieur le maire Aliou Sall Sall ngaari budu gellam toon at nee na taal at su kii bi nu mu tudd Thierno Lo Thierno Lo maa ngi koy gërëm sa xarit ma ba ma defee accident bi moo ma jëloon en charge fañ ma looy wax looy wax wulli sa baat bu mujj sama jour ba laat maa ngi koy gërëm di ko sant laat Qatar maa ngi gërëm diaspora bi ñëpp ku ma liw rek damaa wax wulli sa baat du mujj li ma koy wax daal na taxaw dëggal boobu combat ju neexal da ngeen xeex ba kenn wadd di xeex ci kaw ba kenn wadd amul song amul dafa xeex dóorante ba kenn wadd xeex ba kenn daan wul kenn daan ñu ba yaa wax li wul waaw waaw président kañ la ñuy jàkkaarloo Mbacké commencé nuyul ma ko ah ndeysaan bon Cheikh Kell bi mën a way doo mën a am koy kontaan Fadi Birem, Fadi Birem. Cour pour première journée Gibson Production. Drapeau Seydi Barhama. Barhama Nias Ndaysan ak Mbaye Babacar Diop. Mbaye Babacar Diop Karimat bu mouvement jappal ma jàpp Diop da ba. kenn du moom. ci diggante Brise de Mer numéro 2 ak Bulldozer. ak Bulldozer. Bulldozer nag général bu Malika ko indi Fatim Diop da baax. saan bu Malika. ah bil sifflé na. Brise de Mer fay doo seen ndajoor Bulldozer fay doo ñu ngi lewtoo lewtoo bu diib Fatim Diop da baax. mais ñaari mbir yi ëppante wu ñu. ëppante dara waaye boo xoolee Bulldozer moo ëppal tuuti ci taxawaay. waaye ragal naa ne bu ñu dajee mel ne cong Fatim. Ndeysaan buur nee na bu ñu dajee mbeenum cong lay doon. buur nee na dajee mbeenum cong doon. mbeenum cong lay doon Fatima la wax lii. nekk ci général Malika. Ndeysaan ci général ñu ngi lewtoo Brise daa bëgg dem Fatim. Brise daa bëgg dem. waa arbitre nee na bëre leen Brise de na. daa bëgg a dem daa bëgg bulldozer sigi mu daw ci tànk yi. Brise de Mer. daa mel ni xam na loolu Fatim dañuy xeex dañuy xeex Fatim. waa bulldozer xool nga dóoram. dañuy xeex da koy cokkaas gëmul xeex bi daa bëgg bu dawee sangu ko mu reñaan ko match bi donc bëre Ndamal ak Ndiol. bëre Ndamal ak Ndiol. Bulldozer dagg na Leewtoo. waaw Bulldozer bu sigiwul Brise de Mer du mën ci moom dara. na samante nañuy baaraam songoo nañu. daje nañu ñoom ñaar. mais buur combat bi amul xeex. amul xeex. te pourtant bu amoon xeex. Eh, jël na coup uppercut. Bulldozer mu ngi enchaîné xeex bi nee na da tooñ. da koy tooñ da koy jokkaas Fatim. Bulldozer. mais li muy def baaxul ah. tooñ gis nga lii la bëggoon dem ci tànk yi. Ah, na ko. Bulldozer daan na ja.